ahousubillah bisimillah inna waliyallah la xawla wala xuwata illa billah barki borom Touba mbokk jullit ci mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfalaat bu baax a baax tey ñi ngi fas yéene amalaat li nga xamante ni mooy waxtaan yi ñuy faral di jàllale ci xayaatu rijaal muy fàttaliku yi ñuy fàttaliku sunu gaañu baax ñi saxaabatu saxaabat saxaaba yi nga xamante ni ñoo àndoon ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doon jëmbat li nga xamante ni mooy islaam bi doon ko dundal kon dañuy fas yéene jox sëñ Kajaali kàddu gi mu nuyoo nga xam ni rek waxtaan bi incha allahu rabbi moom lañ ko fas yéene àndal
waaw ahuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax sëñ xaadim di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci jotaay xayaatu rijaal yi kon ni mu ko waxee tey ñu fas yéene waxtaan kenn rek ci gaay yu baax yi kenn ci gaay yu tedd yi kon dañ doon nuyoo rek laata ñoo tàmbale ñu joxaat sëñ xaadim
waaw jaajëf sëñ Kajaali kon ñu mbokk yi ñu xam ne rek saxaaba bu ñu fas yéene waxtaanee day saxaaba bu nga xamante ni mën naa ne sax bu bu bu ñëpp xam ndax turam siiw na lool ndax fépp fu nga xamante ne rek jullit mi ngi fa di fa di fa di fa taxawal islaam gi wala di fa di fa dund islaam gi saay booy joxe waxtu juróom yi sa xel dina dem ci ki ki nga xamante ne moom lañ nar a waxtaanee muy jàmbaar joo xamante ni ku ku ku ku ku fasoon lool la ku fasoon lool la ci ci ci ci islaam gi kon xam naa ngir ñu bàyyi sëñ Kajaal yi yaatal dama koy bàyyi bàyyi waxtaan bi nga xamante ni dinañ gën a xam ki ñuy waxtaanee. kon sëñ Kajaali bisimilah nga dugg ci rek waxtaan ci loo xamante ni nit ñi daañ ko mën a jëriñoo incha allah.
waaw jërëjëf kon tey ki ñu war a waxtaanee muy saxaaba bu tedd bu bu am solo ci dund ci lislaam ci taarixu lislaam ak ci siira nekkoon ku taxawoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko daan dàqantelee abu abdul karim. wala abu abdullah wala abu amru waaye tamit mooy almuwazzinu nabi mooy ki daan noddal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ko daan noddal ci masjidu nabawi waaye ki ko daan noddalit saa su yonente bi àndeek saxaaba yi dem ci xare yi bu ñu waree waxtu julli bu jotee moom moo daan nodd muy ci jàkk ji muy ci yoonu xare yi wala ci tukki yi waaye tamit muy Mawla Abu Bakrin Siddiq suñu waxee Mawla Abu Bakrin mooy affranchi yu Abu Bakar waaw loolu it dinañ ci dikk bu baax a baax muy koo xam ne it gàddaay na ànd ak yonante bi kon muhaajirun la muy badri mu fekkee na xare badar muy koo xam ne mboolem xare yu mag yi yu yonante bi def sallallahu alayhi wa sallam ànd na ko ak moom waaye tamit mu def liggéey yu am solo mu ànd ak ñaari xalifa yi yu jiitu yi muy Aboubacar ak Omar am taxawaay bu am solo ci ci seen xilaafa muy koo xam ne it maanaam lépp lu ab saxaaba bu mag lu tax ñu naan saxaaba bi tedd na wala saxaaba bi màgg na mun nañu wax ne ngeneel yooyu yëpp dajale daje daje na ci moom waaye am it ay ngeneelu boppam. waaw kon tey xam naa ci loolu la ñu nar a yaatal point par point indi dundam daal yaatu na lool waaye lépp luñ ci mën a indi rek dinañ ko dinañ te te suñu xam-xam bu néew àgg fa dinañ ko jéem a yaatal waaw kon.
waaw jaajëf sëñ Kajaali ku dégg li nga wax rek daanaka xel yëpp day xam ki ñu nar a waxtaanee mooy Seydina Bilal Ibn Rabah. nga xamante ni maanaam jëmm la joo xamante ni. kenn ku ci nekk am na loo mën a roy ci moom daanaka kenn ku ci nekk rek yaa ngi yaa yaa ngi roy ci moom lu baax yaa ngi roy ci moom yiw yaa ngi roy ci moom muñ yaa ngi roy ci moom diine daanaka yu bëree bëri lu nit di def ci islaam rek wala lu jullit di ku takkook maanaam islaam gi rek di dund di nga di nga di nga maanaam mënoo ko mënoo saay booy dund lool rek da nga ci barkeeloo ci maanaam dundinu Seydina Bilaal bu baax a baax a baax kon dañuy bàyyi sëñ Kadiali mu dal ak ñun ci fi nga xamante ni fa la Bilal gane àdduna
وسق رداك لبلال بن رباح واجعل مكوثي خير بر ورباح ولي بالباء خير waaw بركة eh, ولي سخر Seydina Bilal ibn Rabah mu ngi gane àdduna Màkka moom nag cosaanam Abacha la mooy Éthiopie moo tax ñu naan Bilal al Abashi Eh, waajuramu jigéen mm, daa mel ni waajuramu jigéen moo nekkoon jaam Màkka eh, moom mu gane àdduna nag ci famille mm, waa Banu Juma muy Umayyatu ibnu Xalaf moom it dinañ ko dinañ indi mm, nan la dunde ak moom waaw kon waajuram bu jigéen mu ngi tuddoon uh, xumaamatu Uh, waajuram bu góor rabaax waajuram bu góor nag uh, gis taarixam bu wér bu leer it jafe na lool moo tax xam naa dañuy bàyyi ba beneen rek gën a xóotal waxtaan wi wala bu boo ko bu ñu dajee ak boroom xam-xam boo xam ne dinañu mën a indil ay information yu leer ci waajuramu góor it dina am solo waaye lu si ëpp solo daal mooy moom màkk la gane àdduna mu bokkoon ci jaamu umayyata ibnu xalaf waaw eh, mu mu muy umayya nag xaw ma ndax ñu ñu ñu dugg ci umayya tuuti
waaw waaw bu tey loolu dañuy gën a leeralal rek tolluwaayu ki nga xamante ni mooy Bilal ci jamono ja muy muñ waaw maanaam tiis tiis yaak nakar ya jamono ba mu koy muñ muñin gu nga xamante ni mënta wo- mënu mënutoon ñàkk ngir ne maanaam muñ googu da ko jële fu fu kawe kawe da ko yóbbu fu kawe kawe ci li nga xamante ni mooy diine islaam kon dañuy bàyyi rek nga dugg ak ñun ci ki nga xamante ni mooy Umayya ibnu Xalaf doonoon njiit Mhm.
ci waa waa u- u- ci ci ci ñi nga xamante ne ñoo nekkoon Quraysh Quraysh.
bokkoon ci gaa yi nga xamante ne ñooy notable yi xarañoon loolu ci ci ci ci ci jaayum jaam Mhm.
kon dañ koy bàyyi rek sëñ Kadiali yi mu ñëw ak ñun foofu euh, mu leeral ko bu baax baax ñu xam jëmm jooju waaw euh, comme ni ñu ko waxee Bilal euh, gane na àdduna Màkka ci biir kër Umayyatu ibnu Xalaf ni ñu ko xamee euh, Umayya mm, waa Xuraysh la da doon liggéeyam moo nekkoon commerce waaye commerce su jaam da doon dajale ay jaam di jaay moo tax nag Bilal gane àdduna ci ci ci ci ci ronam ci këram Bilal mu doon tamit jaamam Umayya ibn Xalaf Umayyatu ibn Xalaf nag mu ngi bokk ci waa Banu Juma ci Xuraysh niñ ko waxee bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootee rek ba Bilal dégg woote bi eh, imaan dugg ko dugg ko ak doole mm, ci la topp nag njàngalem yonent bi ci la tawxiid nag tàbbi ci xolam Umayya nag bokkoon ci ñi nga xam ne nag ñoo gënoon a noonu yonent bi loolu nag metti ko ba nga xam ne eh, ci la daan jël Bilal di ko torturer di ko yóbbu ba ci montagne yi di ko tëral ko teg ay xeer ci kawam di ko bëgg a weddiloo lislaam waaye lépp lu mu ko wax ne waxal nangam waxal seen yàlla bi nangam Bilal du ko ci tegal lenn lu dul ahadun ahad waaw waaw loolu nag di eh, tawxiit bu bu bu bu- bu am solo ba nga xam ne Bilal amoon na ko Umayya eh, niñ ko waxee kilifa la woon biir màkk Eh, nga nekk kilifa di xeex yonente bi yow sa jaam bi nga xam ne yow yaa ko moom mënatoo ko contrôler mu gëm li nga xam ne yaa ngi koy xeex loolu nag kon eh, doonoon na loo xam ne metti woon na Umayya ba mettit bu ne teg teg na ko ko ak yeneen jaam yi nga xam ne eh, ñu ngi fa woon waaw kon loolu moo nekkoon euh, dund bi nga xam ne Bilal daan na ko dund na ko ci njëlbeenu lislaam gi waaw Umayya lu ne teg na ko ko di ko yóbbu ci àll bi bëgg koo wetloo waxloo ko lu ne dóor ko waaye Bilal moom ahadun ahad rek loolu la doon la doon la doon wax mooy kennal yàlla gi euh, wane ne fësal ne lislaam moom tàbbi na ci xolam tàbbi goo xam ne euh, kenn mënatu ci dara waaw kon euh, Umayya lu ñu ciy dolliwaat ci moom mooy biñ demee ba euh, yonent bi gàddaay dafa dafa xaritoo woon ak Saad ibn Muaz bi Saad di ñëw léeg-léeg Màkka da daan tawaaf kaaba gi euh, Umayya daan ko gunge wala Umayya daan ko wax naan bàyyil ba waxtu sàngam nga tawaaf kaaba gi ndax xaritoo gi ñu xaritoon boobu yonent bi ñëw na Médine bi muy tawaaf mu dajeek Abu Jahlin Abu Jahlin ne Saad kii kan la kan kan mooy tawaaf nii Kaaba gi Saad ne ko man la Saad ibnu Muaz mu ne ko yow yaa ngi fii di wër Kaaba gi ba pare nga jël yonent bi fat ko Médine mu ne ko waaw léegi ni muy tontonteeg Abu Jahl Umayya mi Umayya nag naan ko naan ko da nga da nga wax ndànk ak suñu kilifa. waaw Saad di wax ak u- ak ak euh, Abu Jahlin wax bi tàng Umayya naan ko wàcceel sa baat kii sa kat suñu kilifa la. si la ko Saad ne yow mii sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dina la faat waaw Umayya nag boobu amatul jàmm waaw loolu yëpp nag euh, di wane ne. kon yonent bi sax ginnaaw bi muy gàddaayee Umayya jëf ji mu doon jëf yépp te jëf ko Bilaal ñoom jàppoon nañ ko bàyyi woon ko ba bàyyi woon nañ ko xel ba yonent bi sax prédire na leen ne Umayya dina faatu dinañ ko faat waaw ba bis boobu la ko wax Umayya Umayya bi mu demee këram nag wax ko soxnaam soxnaam da ko ne ah kooku de yonent bi de lépp lu mu wax de moom day am lépp lu muy wax de fa- day daan faral di am kon na nga na nga ko moytu ci la Umayya nag fas nag ne bés bu xeex di am ak wala génn daje ak yonent bi di am du dem waaw waaye yaa comme fekk sagam yonent bi wax na ko ba noppi moom noonu noonu la nar a demee. naa loolu it dinañ ci ñëw ci kanam.
incha allah loolu mooy wane ne Umayya jëf jim daan jëf Bilaal ak fonk gi eh, jullit ñi fonkoon Bilaal loolu tamit dinañ ci ñëw bu baax a baax tax na ba yonent bi teel a prédire euh, faatoom ba s- euh, saxaaba yeeg lansaar yeeg ñëpp xam ko xam ko ci moom xam ne bis dina ñëw lépp lu Umayya defoon bis dina ñëw tamit eh, di- di- dinañ ci am xol bu sedd waaw kon noonu noonu noonu la demee Umayya nag kon mbonam ak soxoram foofu la tolloon waaw waaw kon dañuy santaat suñ ko jaar nag ci li nga leeral ci Umayya ibn Xalaf xanaa lu ñu ciy dolliwaat rek mooy maanaam euh, ku daan jaamu xërëm la waaw ginnaaw jaay jaam jaayum jaam gi daf cee boole woon it di di jaamu xërëm euh, maanaam fonkoon fonkoon jaamu xërëm googu noonu ba maanaam Seydina Bilal ba mu dugg see ci biir diine islaam loolu doonoon lu ko metti waaw ci maanaam ñàkk a topp diine gi nga xamante ni moom na- moom moom moom ci la ci la nekk kon euh, biir jaayum xërëm googu noonu tamit ak euh, ñi mu ko sekk ñi mu- biir jaayum ñi nga xamante ni mooy jaam googu ak jaa jaa ak ak jaamu xërëm gi loolu doonoon na loo xamante ni euh, lu lu lu lu lu- lu taxoon euh, mu nekk ci maanaam position ngir mën a toroxal toroxal ki nga Bilaal.
xamante ni mooy Bilaal Mhm.
ak tamit garder seen dignité ñoom it dañuy am benn rëy goo xamante ne day ne ci ñoom ba képp ku nekk seen kilifteef rek boo boo toppul seen ndigal loolu day nekk offense ci ñoom waaw, ñëpp rawatina ngay kon- jaam nag waaw rawatina waaw rawatina ku ne ku ku mel ni maanaam Bilaal nekk jaam juddoo ci këram ak- waaw waaw mu màggee ci ay dëkkuwaayam Euh, ba pare maanaam mu koy dundal ba pare moom it mu muy joxe muy muy muy may muy may ndigalam nga xamante ne moo nekkoon ay ay ay ay ay mu- ay ay ay coono yi nga xamante ne doon nañ ko teg muy muñ kon dañuy bàyyi nga nga duggaat ak ñun rek ci tartar yi Eh, ni nga ko waxee rek loolu dafa laaj courage bu bu am solo Bilaal moom li muy def noonu lu jafe la mooy mënoon na bañ a fësal def comme ñëpp mm, làkk ngëmam te nekk ci biir waaye ngëm gi da ko ëpp doole ëpp doole goo xam ne mënu ko woon ci saa si la doon la ko fësal mu jaraloon ko léppam ba mm, loolu moo sabab ni nga ko waxee public lañ ko daan teg en public daan mettital jullit ñi en public lañ leen daan teg loolu nag gën a daan ni Bilaal doon réagir nag da daan gën a tax ñoom ñu gën a frustré wu Mm, ndax ñëpp a koy fekkee ñu weddiloo bëgg a weddiloo Bilaal Bilaal di wax ahadun ahad loolu ab ab euh, toroxal dëgg la woon ci ci ci ci ñoom moo tax nag moom mm, mu daan gën a metti fu- mettital wi ñu ko daan mettital gën a fës ci la Seydina Abubakar nag romb euh, wax Umayya ne ko ki ngay mettital nii moom tey tey tey nga koo bàyyi mu ne ko lépp lépp lu lu lu lu ko dal tey ji rek yow bokk nga si ñu ko ko teg ndax ndax yow yaa ko influencé ci diine bi nga xam ne moom moom ngeen di topp nii mu ne ko bu dee nag da nga da nga see da nga kaa bëgg a noppal da nga koy jënd waaw ci la ci la ko Seydina Abubakar laaj njëkk li mu ne ko ñeent fukki uqiya bim ko fayee Seydina Abubakar jënd ko mu ne ak Umayya ne ko boo ma laajoon benn uqiya sax ma jox la ko ndax jëriñatuma dara ci la ko Seydina Abubakar wax ne yow it boo ma laajoon lu ëpp ñeent fukki uqiya yooyu ma ma ma fay la ko ngir ngir jot ci moom. waaw kon noonu la si Seydina Abubakar jotee ci moom ba noppi goreel ko waaw ni comme ni nga ko waxee tamit mbégte la woon ci yonent bi lool ndax euh, yonent bi moom lépp loo xam ne daan na dal saxaaba yi da ko daan mm, metti waaw bu sañoon eh, jamono jooju mettital li lépp pexe pe- bépp pexe bu ñu mën a def rek ngir mu oyof si saxaaba yi dina dina ko def kon Seydina Abubakar noonu la def ba euh, jënd Bilaal goreel ko waaw moom tamit mm, noonu la demee woon
waaw xanaa dañuy leeral rek ci ñi nga xamante ni euh, comme fësal goog Seydina Bilaal fësal euh, diine islam gi nga xamante ni moom la doon dund da ngay gis ni dafa bokk ci benn loo maanaam juróom-ñaar ñi nga xamante ni maanaam dañoo dañoo fësal dañoo dañoo teel a fësal seen di seen seen seen seen islam Euh, euh, ki ci jiitu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, Seydina Abubakar ak ki nga xamante ni mooy Amar ibn Yasir ak yaayam Sumay Sumayya ak ki nga xamante ni mooy Bilal ibn Rabah ak su Suhay Suhaybu ak Miq Miqdaad ñoom ñëpp kenn ku ci nekk seen seen iman moom ba mu duggee ci seen xol rek daanaka dañoo fësal bu baax a baax islaam gi eh, ba ñëpp xam ko ñi ci gën a néew doole moom dañ doon leen dañ doon leen dañ doon leen mettital bu baax a baax a baax Euh, Yasir ku dund metti googu la euh, Sumayya comme niñ ko xamee si la faatoo Euh, ak ki nga xamante ni mooy Miqdaad ak Suhayl Suhayl.
Suhayb bu ñoom ñëpp dañ daan leen teg ay tartar Mhm.
ndax maanaam ñàkk am ku leen aar Mhm.
kon goreel gi ba mu ba mu ay ba mu amee it euh, da ngay xam ni euh, Seydina Bilaal cofeel gi nga xamante ni am na ko si yonante bi euh, s- euh, daf- dafa dem féetewoo yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
euh, di fa dund li nga xamante ni mooy islaam gi euh, di ko tarbiyu Mhm.
kon dañuy bàyyi rek euh, digganteeg yonante bi ak Seydina Bilaal waaw euh, nga dugg ci baax waaw a baax.
ñoom digganteem ak yonent bi nag bi Bilaal nekk goree ba tey séq na kóllëre ak Seydina Abubakar ndax daa doon Bilaal Mawla Abubakar comme niñ ko xamee arab yi bu la nit boo nekkee jaam ñu goreel la da ngay da ngay téye kóllëre gi ak ki la ki ki ki la goreel wala nit jënd la goreel la da ngay doon mawa ma- mawlaa ci moom mawaali kon loolu moo indi euh, Bilaal mawlaa Abubakar Siddiq waaw ñoom ñaar seq nañ ko lëre te ànd na tamit ak yonante bi takkook yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom Bilaal Mm, buñ daan tukki yonante bi moom la daan dénk xaalisam moom la daan dénk dénk yóbbalam seen ñam ak yooyu moom Bilaal moo ko daan téye Euh, gis nañ ne am na xadis sax buy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, màkk daan nañ toog ay fan yu bari xiif lool te suñuy lekk lu ñuy lu ñuy lekk di ko lekk ndànk-ndànk bu mooy li nga xam ne bu ko bilaal boqee rek daanaka doo ko gis ndax dafa dafa bariwutoon waaw kon loolu lañ daan lekk ay fan ndax màkk nuñ leen tëjee woon mm, xatal leen fa waaw kon bilaal proximité boobu la amoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit euh, day feeñal jikko ju rafetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ni mu jëlee bilaal teg ko ci wetam nga xam ne lislaam du diine yi euh, classe sociale wala ku gën a kawe classe sociale mooy ëpp daraja ci diine bi déedéet Bilaal dafa doonoon jaam bu ñu goreel mu ñëw yonente bi jegeel ko boppam waaw féetewoo ko daanaka kon loolu day wane ne euh, yonente bi jikko ju rafet bu mu amoon du xeeb nit ci classe sociale am wala fu mu jóge waaw kon loolu tamit feeñ de feeñ na si bu baax a baax kon noonu la àndeek yonente bi ba jamonoy gàddaay gi waaw ñu noonu la demee waaw waaw kon de loolu it muy lu am am solo ci njàngat ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom euh, ku takkook moom euh, maanaam euh, tawféex dëgg-dëgg ngay am euh, ak euh, ak maanaam euh, m- ak euh, dund sa islaam kem ni ko sunu borom digle Mhm.
euh, noonu nga koy noonu nga koy noonu nga koy dundee euh, teggin yi nga xamante ne rek euh, maanaam Bilaal amoon na ko loolu loolu it euh, nit ñi euh, loolu yëpp ñu- maanaam euh, lu ñuy lu ñuy roy la lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy xembem la ngir ne boo nekkee kilifa moom euh, daanaka am na fu fu fu fu fu fu xéew li xéew xéewal di toll wala am na fu ay ay mbiram di toll euh, noo ko ko mën a noo ko ko mën a sàmmalee rek euh, ba maanaam euh, du gàllankooru Euh, war nga cee war nga war war nañ cee def sunu kéem kàttan ba loolu am Euh, loolu euh, Seydina Bilaal da koo dund ak yonante bi bu baax a baax ak ñi nga xamante ni ñoom la nekkaloon biir Màkka donte euh, comme ni ko sëñ Kadiali waxee rek xéewal yi euh, daan na néew néewaay gi nga xamante ni euh, donte xéewal yi bëriwul bëriwul woon sax waaye da ngay xam ne ñi dugg ci is diine islaam gi jamono yooyu bëri bëreegul woon Mhm.
waaye gis nga amoon nañ xew gi daan toll ba nu mu daan sàmmee loolu ba maanaam mën ko yët ki nga xamante ne mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay teggin te kenn du yëg loolu it muy ay loo xamante ni ay ay ay ay ay ay bind la yoo xamante ni mën nañ koo jàng bu Mm.
baax a baax ci Seydina Bilaal waaw fu ñuy dem bay Euh, bay dénk moom daa fekk Mhm.
dañ laa wóolu wóolu daal waaw waaw kon yonent bi amoon na kóolute googu kóolute ci ah, kóolute.
ci ci ci bilaal Mhm. kóolute googu day da ngay gis nekk kóolute googu daa mënta ñàkk it ci nit Euh, maanaam boo demee bay ànd ak ay ay ay kilifa Mhm.
day baax euh, kóolute Seydina Bilaal nga bàyyi ko xel bu baax a baax Mhm. Waaw.
ak dal gi tee gi yooyu yëpp day fee feeñaat ci Mhm.
ay ci ay mbiru ci ay mbir yu nga xamante ni jullit bi da ko war a roy Mhm. mun a sàmm Euh, secret waaw, tamit mën a kilifa.
sàmm Mhm.
euh, mën a sàmm Mhm.
secret ndax yu- am na yoo xamante ni moom ku Mhm.
dul sàmm secret mënuñ la koo dénk moom Mhm.
ku amul dal mënuñ la koo dénk waaw euh, ku amul tamit yeewute mënuñ la koo dénk Mhm.
te yooyu yëpp Seydina Bilaal da koo boole woon waaw.
amoon na dal amoon na yeewute amoon na maanaam euh, amoon na maanaam mën a xam nooy toppee Mhm.
loolu yëpp amoon na ko te loolu rek maanaam mooy doxinu doxinu sell yi nga xamante ni julli da ko war a bàyyi xel bu baax a baax mën koo jikkowoo Mhm.
Euh, kon ci biir jikko yooyu nga xamante ni rek euh, maanaam euh, dañ koo dañ koo dañ ko war a roy Mhm.
Euh, dañuy bàyyi rek euh, nga wóyaat ci topp gi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Bilaal doon na ko topp ci euh, maanaam ndigal li jiboon ci fexe nu ñu gàddaayee jóge Waaw.
biir Màkka dem Médine waaw gàddaay gi bi mu bi yonent bi gàddaayee xam naa ak ñëpp xam nañ nu mu nu mu- nu mu demee daanaka jaaruñu ñu si jaaraat biñ demee ba àgg Médine Bilaal tamit bokk na si ñu njëkk agsi waaw moom Abdullah ibn Ummu Maktum ak Seydina Omar euh, ñoom bokk nañ ci ñu njëkk àgg Médine bi ñuy àggee it euh, dafa am xew-xew yu yu yu yu bari yu si am waaye li si gën a fës mooy bi euh, muhaajiroon yi waa Màkk àggee Médine climat bi miinuñu ko woon dafa soppeeku woon ci ñoom euh, ñu jóge foo xam ne climat bu xaw a sec la ñu ñëw ci foo xam ne dafa xaw a humide ndax tàndarma gu bëri gi mu nekk oasis si ñoom ñu tàmbale di sibiru tàmbale di feebar euh, seen xel nag di demaat màkk nga xam ne Bilaal ak Seydina Abubakar dañ daan toog di fent ay bayit di fàttaliku màkk di am nostalgie lool ci màkk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ko bi mu ko déggee ci la ñaan suñu borom allahumma habib ilayna ina ilayna al madina ka ka xubbina makka aw ashad yàlla na nga def medine mi neex lool ci ci ci ci ñun wala sax mu ñu- mu neex lool ci ñun comme nu nu màkk neexee ci ñun wala sax mu ëpp ko waaw yàlla na nga def ñu bëgg lool medina comme nu ñu bëggee màkk wala sax ñu gën koo bëgg lépp wala sax mu gën bëgg gi gën a tar ci ci ci ci màkk te nga ba barkeel ñu barab bi ak ci la ñaan bi nag nangoo na- ñaan bi mu nangoo ci la coono yooyu yëpp nag dañ benn saxaaba jàmbatatul mettit yi wala feebar yeeg wala yooyu waaw kon loolu tamit euh, yonente bi gis na ne saxaaba yi am nañu jafe-jafe intégré ci côté adapté waaye bi mu déggee njàmbatu Bilaal ak Seydina Abubakar nag ci la ci la ñaan kon loolu tamit day wane ne amoon na amoon na bàyyi xel gu mu bàyyi xel Bilaal ak Seydina Abubakar waaw comme ni ñu ko waxee woon rek taqoo gi ñu taqoon ñoom ñaar moo taxoon waaw kon loolu loolu mun nañu wax ne ñaan gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ba tey ji Medina amul saxaaba boo xam ne nekk nga fa nga bëgg faa génnaat ñëpp dañoo mujj sax foofu bi ñu defee fatu màkk ak lu ñuy bëgg bëgg dellu màkk ñoom ñëpp a dellu si waat Medina kon ñaan googu mun nañ wax ne ci genn wàll ci Seydina sababu Seydina Bilaal la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanee ak Aboubacar waaw kon noonu lañu àggee Medine waaw duñ ko waaw kon dañuy da- comme ni nga wax rek ci biir ñaan bi noonu euh, maanaam euh, ñaan bi euh, lu tax mu am solo dafa am fu xel di dem maanaam euh, laata ñaan bi di yegsi pas-pas bi nga xamante ni euh, Seydina Seydina Bilaal amoon na ko Mhm.
ci maanaam Màkka Mhm.
nga xam ni Màkka gi nga xamante ni fa la ganee àdduna euh, ki nga xamante ni mooy Seydina Abubakar it moom it fa la ganee àdduna ak saxaaba yu bëri fa lañ ganee ga- àdduna ba si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Alayhi wa sallam.
fa la gane àdduna te maanaam euh, bokk na ci xadis euh, euh, ñu naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan xubbul watani minal imaan yi Mhm.
maanaam bàyyeekoo nag bi nga xamante ni euh, maanaam bàyyeekoo bi nga xamante ni bàyyeekoo nañ màkk màkka dem Médine Mhm.
maanaam bëgg gi nga xamante ni bëggoon nañ ko màkka loolu amoon na lu mu doon def seen xol bu baax a baax a baax ci ba ñu yegsee Médine Mhm.
ndax Médine bañ fa yegsee mu dafa nekkoon dëkkuwaay bi nga xamante ni a- adéquat wul maanaam euh, neex neexu la dëkk ci ki nga xamante ni dafa jóge Màkka Mhm.
euh, ñëw ñëw sanc Mhm.
euh, ndax euh, dëkk boobu nu mu daan mel ci taa ak ci bëri tooy tooy yu demee noonu seen climat ak climat Màkka dafa xawoon a- dafa wuute bu baax a baax ba ñoom it euh, maanaam wuuteeg clim climat boobu noonu wala wuuteeg euh, euh, maanaam euh, dëkkuwaay bi noonu Mhm.
dafa amoon lu mu doon jeexit seen yaram Mhm.
di leen jox ay tawat yu nga xamante ni tawat yooyu noonu Mhm.
euh, doon tar lool ba moom daan waayantoog sëy Seydina Abubakar ci xeetu maanaam di ko di fàttaliku Màkka.
maanaam nàkk dëkk dëkkuwaay ya Mhm.
maanaam pays pays pays penc yaak yu demee noonu Mhm.
loolu it dañuy bàyyi rek xam naa mën nga ko gën a yaatal sax waaye loolu it dafa bokk ci sabab yi nga xamante ni moo sababoo euh, maanaam euh, maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan maanaam fi nga xamante ne mooy Médine gënal leen gënal leen fi nga xamante ne foofu foofu lañ jógee te muy Muy Màkka Màkka. Mhm.
te xam nañ Màkka it Mhm.
tolluwaay bi nga xamante ni am na ko si sunu borom Mhm.
ni ko yonente bi bëggee Mhm.
Seydina Abubakar bëgg ko Seydina Bilaal bëgg Màkka bëgg Màkka dafa bokk tamit ci ni nga xamante ni eh, lu sunu borom bëgg la parce que pàkk la boo nga xamante ni eh, maanaam eh, moo gën a moo ëpp daraja ci kaw suuf Mhm.
eh, te moo gënal sunu borom Mhm.
eh, gënal gi nga xamante ni moom la gënalee sunu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu foofu mu jógee it ba muy ba muy dem ci gàddaa gi Mhm.
eh, dem na ba génn peggu Màkka jàkk daal di wër wëlbati ko jàkkaarloog Màkka Màkka Ndeysaan.
di wax comme kuy wax ak jëmm Ndeysaan.
euh, naan ko bërëb bi nga xamante ni eh, fa laa juddoo Mhm.
euh, maanaam bu fekkoon samay noon génnewuñ ma Mhm.
amaana fii laay wëyalee sunu sunu sunu woote ba keroog may may may may may may may may may dellu àjjana waaye eh, wax jooju mu doon waxi doonoon lu daw yaram ci yonante bi ba daa doon na tur xéewal Ah.
yooyu yëpp muy wane cofeel nga xamante ni amoon nañ ko cofeel Mhm.
màkka waaye ndeem ndeem nag waxtu waxtu wax wax waxu wax wa- wa- wa- jamono yu yaatal yaatal li nga xamante ni mooy islaam gi moo jotoon Mhm.
moo tax it ñëw gi de- Médine daa mënutoon a ñàkk Mënutoon moo tax ñëw ñëw nañ Médine terewul it xéewal yi nga xamante ni buñ toogoon màkka dañ koy am Mhm.
yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da- daf ko ñaan Mhm.
suñu borom defaral leen ko ba yokk ko Mhm.
nga xamante ni kon cofeel gi nga xamante ni dañuy am dañ koy amaat ci Médine loolu it day tolloog cofeel gi nga xamante ni moom lañ am ci Màkka ba pare amaat leneen lu ci dolliku Mhm.
Euh, kon dañuy bàyyi rek sëñ Kajaal yi Masha Allah. Am na bismillah solo lool.
maanaam muy Ni nga mu yaatal mu yaatalaat waxtaan gi waaw ni nga ko waxee rek noonu la nit ki fu mu ganee àdduna day am wàll gu gu gu sori te kawe ci moom moo waraloon nag biñ fay jógee mu metti lool ñu ndax foofu lañ ganee àdduna muy seen seen seen réew moo xam ne fa lañ xam eh, fa lañu fa lañu miinoon rawatina gane gi ñu fa gane àdduna waaw ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko nu mu nu mu fa bëggee woon waaye it bëgg it ay mbokkam lool yéene leen lool ñu dugg ci lislaam léegi ñoom ñu xeex ko ba muy génn loolu tamit doonoon lu diis gan waaye lislaam nag moo moo moo moo ko jaroon faaw nag lislaam demoon na ba nga xam ne xajatuloon màkk faaw mu génn feneen foo xam ne dana dana adapté ak moom dina ko may jàmm gi nga xam ne soxla na ko ngir yaatal kon moo moo moo moo tax gàddaay gi doon lu lu lu lu lu màgg-màgg ba nga xam ne euh, impact bi mu amoon sax moo tax ba bi Seydina Omar di xool première année buñ bi bi- l'an zéro wu euh, l'an un wu calendrier musulman ñoom ñëpp dañoo dëppoo ci gàddaay gi ndax gàddaay gi dafa amoon euh, impact bu rëy a rëy rëy ci ñoom comme ni nga ko waxee waaw waaw kon moo waraloon yonente bi nag ñaan ñaan gi mu mujj nag nostalgie googu ak nammel googu mujj oyof si ñoom waaw euh, nga xam ne ni mu taree woon seen xol loolu mujj nag deñ nga xam ne Médine nag mujj am tawféex lool si ñoom waaw waaw bu wér teewut nag yonente bi defaat na ci yeneen i pexe ngir seen nekk Médine gën a gën a yomb mooy dafa boole ñaari dafay boole muhaajirun ak benn lansaar lansaar bi da da koy dalal di ko dimbali euh, fat ko këram mu ñu bokk lépp nga xam ne loolu tamit nit bu ñu installé da ngaa soxla ku la dalal yonente bi nag créé benn mbokkoo ci diggante muhaajiroon yi ak lansaar bi muy suy boole da daan xool ñaar ñu bokk ñu ñuroo ñu méngoo jikko ñu xaw a tollooy at mu boole leen bi eh, bi ñu àggee Medine nag eh, yonent bi daf ko boole ku ñuy wax Abu Ruway Ruwayha Abu Ru- Ruwayhata waa Medine la woon di jullit bu baax di koo xam ne euh, man yéex naa yéex naa kaa xam sax yéex naa koo gëstu Abu Ru- Ruwayha euh, Bilaal fonkoon na ko lool ndax boole gi ko yonent bi boole woon ak moom Abu Ru- Ruwayha tamit fonkoon lool Bilaal ba nga xam ne jamonoy Seydina Omar Seydina Omar bi muy séddalewaat alalu jullit ñi bi mu woowee Bilaal ne yow kan laa lay booleel su may jox su ma- su ma lay jox sa alal bi boobu Bilaal mu ngi tàggoo Seydina Omar ne ko loolu dinañ ci agsi damay dem Sham mu ne ko boo bind ma ak Abu Ruwayha daa mel ni ñoom ñaar sax ñoo mujj ànd dem Sham ba nga xam ne liste ñi cosaanoo euh, Abacha Seydina Bilaal ak Abu Ru- Ruwayha ñoo ñoo ñooy njiitu liste boobu buñ leen buñ leen daan jox seen seen alal ci baytul maal ñoom ñaar lañ daan boole kon mbokkoo gi mujj naa dëggu ndax euh, kóllëre gi yon yonent bi moo ko façon abu ru ruwayha tamit di koo xam ne ba tey li- euh, mook bilaal ni ñu daan àndee yonent bi euh, ba ko daan bàyyi xel ba tey ba bi fatu màkka bi yonent bi waxee ne képp ku dugg kër abu sofiyaan mucc nga képp ku ñëw ci kaaba gi mucc nga ba kër gi abu sofiyaan ak kaaba gi xat ci la yonent bi woo abu Ru- ruwayha ne ko jëlal raaya gi nga nga nga nga ngay dox di wër màkka
est-ce que nga ne nga ne euh, bilaal nag mooy taxaw sa kanam mu woo bilaal ne ko toppal do- doxal ci kanam abu ruwayha ngay yuuxu ci kaw ngay yéene ne képp koo xam ne ñëw nga ci ronu raaya gi drapeau bii tamit mucc nga est-ce kon que- bilaal moo taxawoon ci kanamam Tabarkalla.
abu ruwayha yor drapeau bi ñiy wër màgg kon kóllëri bi ak abu ruwayha tamit euh, mujj naa sori lool waaw loolu loolu tamit di di di di di di di détail bu am solo ci ñi nga xam ne ñoo ñoo bokkoon environnement ak ak ak ak ak Bilal waaw noonu it la mm, continuer takkook Seydina Abubakar ba tey waaye takkoo tamit ak yonante bi bu baax a baax a baax Est-ce que- est-ce que- waaw noonu noonu noonu noonu la demee woon waaw Médine kon nag dundam noonu noonu noonu la Mhm.
demee Mm.
kon da ngay xam ne rek euh, maanaam xarañteefu yonente bi moo feeñaat foofu rek Mm.
euh, boole bi nga xamante ni boole na ko mu xaajiruun yi ak lansaar yi nga xamante ni loolu tamit ci yu mënta ñàkk la woon ci jamono yi nga xamante ni eh, mooy jamonoy gàddaay gi Mhm.
nga xamante ni maanaam mu xaajiruun yi dañoo bàyyi seeni kër bàyyi seeni soxna bàyyi seeni doom bàyyi seeni alal euh, bàyyi lépp euh, maanaam euh, lépp lu nga xamante ne rek amoon nañ ko ci màkka dañ ko faa bàyyi daal di ñëw ngir rawale seen diine maanaam seen taqwa lañ rawale ci woon yegg si fi nga xamante ni mooy euh, mooy fi nga xamante ni mooy Médine waa Médine tamit ñu ñu- comme nu ñu nekkee ay ay ay ay ansaar ñoom it euh, maanaam nekk ñu mën a dalal ay gan euh, ñoo tatagal islam bu baax a baax euh, taawu ko ñaari loxo euh, ba islam dugg si euh, ñu dalal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, def ko muy kilifa gi def ko muy muy muy seen sang du- nekk ki nga xamante ni eh, maanaam eh, moom la ñuy moom moom la ñuy déglu eh, ba déglu googu mu doon ñu ko doon déglu it si la amee xarañteefu eh, boole ñi ngi boole boole boole gi mu doon boole mu xaajiruun yi ak lansaar yi eh, mu xaajiruun yi seen i dëkkuwaay yeeg seen i soxna ñu koy xaaj boole bokk ko ñi nga xamante ni mooy eh, ak seen i tool bokk ko ñi nga xamante ni ñooy an ñooy ñooy mooy mu xaajiruun yi ansaar yi ñoo doon def loolu boo bokk ko ñi nga xamante ni mooy mu xaajiruun yi loolu mu doonoon lu am solo ci diine gi nga xamante ni kon mbokkoo foofu moo moo moo moo fa sosuwaat mbokkoo gi nga xamante ni euh, lu mët a sàmm la ngir ne mbokkoo niñ ko xamee rek euh, maanaam euh, si suñu borom la suñu suñu suñu suñu borom lay delluwaat rek euh, ne kóllëre moo ko lal daal mbokkoo moom daanaka booy xool kóllëre la rek Euh, képp ku ko sàmm rek sunu borom euh, yaa ngi ci yaa ngi ci lool yaa ngi ci yaa ngi ci tawféex gu gu gu mat a mat a mat képp ku ko sàgganee it da ngay gis ni maanaam euh, sunu borom euh, dalay sàgganee rek kon mbokkoo googu amoon ci diggante eh, ansaar yeeg mu xaajiruun yi eh, lu am am solo la comme nu ko sëñ Kajaali waxee rek Seydina Bilal Mhm.
euh, ki ñu ko boole woon mooy Abu Ruma Ruma ruwayha Abu Ru- Ruwayxa waaw Mhm.
moom ko jëmm jooju moom dese woon naa ko miin bu baax man mii lii moom la am solo la moom ci waxtaan bi xam yàggut Euh, waaw waaw kon ku ñu jar a bàyyi xel la moom it euh, Abu ruwayha Ruwayxa xam dundam tamit day baax ngir ne saxaaba yi moom euh, koo ci koo ci koo ci gëstu rek boo boo lu mu lu lu- lu mu néew néew di nga ci amee Incha ab Allah.
dolliku waaw bu di baax nga ci amee xamee di nga ci amee ak dolliku te di nga ci amee dina la jëriñ njëriñ lu bëree bëri kon jar na euh, jëmm ji di Abu ruwayha waaye xata ñu toppaat ay mbiram euh, toppaat ay ay ay ay dundam macha Allah comme niñ ko defee ci mbooleem euh, gaañu baax ñi fii ci xayaatu rijaal kon dañuy euh, continuer waxtaan bi xool liñ ci mën a dolliwaat rek ngir ne Seydina Bilaal dundam yaatu na lool yaatu dundam yaatu na lool waaye ni ñu koy defee ay pàcc pàcc di ci jël tuuti tuuti dañuy bàyyiwaat rek waxtaan bi wéy kay mun euh, nañoo ndax dugg sax ci euh, li ñu gën a xamee Bilaal muy nodd gi
waaw waaw waaw loolu tamit kon dama la ci dama lay bàyyi rek nga dugg ci nodd bi ngir ne nodd bi moom ku ku ku dem jumaa joo mën a dem rek tey am ab bilaal bu fa ne waaw bilaal bi kenn ku ci nekk maanaam daanaka ku ku yà ku miin jumaa ji rek daanaka même boo dugg siwul sax ci biir jumaa ji eh, boo déggee im- eh, bilaal di nodd da ngay xam bilaal bi ku mu doon boo déggee nodd bi rek da nga koy day da ngay day teel a ràññeeku waaw Euh, te tur tur ki nga ki nga xamante ni mooy nodd sax mën nga koo bañ a xam waaye da ngay xam ne bilaal mooy def lii waaw, te- te- kon dañuy bàyyi rek sëñ loolu daa Kajaar mel ni aada la sax Euh, waaw, wolof waaw.
mooy mooy tuddee noddkat Bilaal waaw waaw noonu sax waaw waaw kon dañ lay bàyyi nga gën ko leeral rek lu indi xista bo- xis xista boobu noonu ni ñu ko waxee suñu xel bu bu bu bu bu ñu waxee noddu rek suñu xel ci bilaal bilaal la jëm waaw ndax moom mooy mooy ki njëkk a noddu ci lislaam loolu nag ni muy demee mooy yonent bi bi ñuy gàddaayee ba noppi ba ñu taxawal masjidu nabawi muy juma juma yonent bi euh, jàkk ji euh, tabax ay këram jullit ñi dañ daan bàyyi ba waxtu wi jot rek ñu daje yonent bi ñëw jiite leen ñu julli amul benn yëgle boo xam ne daan nañ ko def dañ daan xayma waxtu wi rek ñëpp ñëw daje ñu julli léegi nag euh, ci la mm, yonent bi xalaat ne war nañoo war a ut pexe ba di woote loolu tamit saxaaba yi sàkk woon ko ci la ñu xalaat ne nañ def xeetu euh, mbiip yooyu comme yahudi nuñ koy jëlee jël béjjën bënn ko nga xam ne da nga koy ëf mu def euh, mu mu doon mbiip bu fort yonente bi nag ne déedéet loolu dañuy ñuroo loolu ak yahud yi waaw ndax yahud jamono jooju tamit yahud yi ñu ngi biir Madina Mhm, waaw.
kon loolu mun na indi confusion ak ñuru ñurulu gi tamit yahud tamit loolu tamit lu jar a moytu la si jullit jullit moom da ngaa war a euh, bañ a Jullite, ñuru ñurulu waaw.
leneen lu dul ab jullit ci lañ xalaat ne kon nañ jël benn weñ palaaku weñ jël beneen bantu weñ di ko fëgg comme loolu foor na ñu ñu ñu ñu- mu doon woote woote julli gi ci lañ wax ne waaw léegi nag ku ne di wër euh, Seydina Omar mu ngi wër fu mu mun a amee weñ ak benn bantu weñ benn barre de fer bu ndaw tiiju weñ ak benn plaque weñ nga xam ne dañ koy fëgg ku ne di wër ba am na ku ñuy wax ci saxaaba yi Abdullah ibn Zayd ibn Saxlaba moo tëdd guddi rek gént nee na mu ngi gént benn jëmm ju rafet sol lu yére yu rafet yu verte mantu bu verte ak njiitlaay bu verte mu ngi yor weñ boobu ñu doon wër ñoom mu ne ko lii de soxla naa ko ndax da nga koy jaay léegi jëmm ji ne ko loo koy joye loo koy doye si la ko wax ne dañoo bëgg saa su waxtu julli jotee ñu jël ko ñu fëgg ko nit ñi mën a xam ne waxtu julli jot na mu ne ko téema laa wax li gën loolu mu ne ko waa bismillah ci la ko wax nag anam gi ñuy noddee waaw mooy allahu akbar week yooyu ba nodd gi jeex moom nag mu jàpp ko bi mu yeewoo nag si la daw ci yonante bi nettali ko gént gi yonante bi ne ko kon bokk noonu la ñuy def léegi wool bilaal bilaal moo la gën a foor baat waaw nga wo nga jàngal nga sako baat yi moom mu mu mu mu mu mu nodd ci lañ wooye bilaal bilaal nodd bi bilaal noddee rek Seydina Omar fu mu toll dafa dégg daf ko dégg bi mu déggee bilaal rek moom it mu daw si mu mu mu mu mu ne lii mu ñëw tamit ci yonante bi ne ko lii tamit démb gént naa am ku ma sàbbaat yi mu ne ko waaw Abdullah ibn sa Abdullah ibn Zayd bi mm, tamit moo la ji jiitu na la si am na sax ñu naan wax yu bi jiitu moo moo moo jiitu kon daa mel ni nodd am na ku mel ni ibn Ishaq indi na ko ne euh, wax yu dikk na ci wax yu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sar Abdullah ibn Zayd ñëw wax ko yonante bi waaw maanaam dafa tombé lépp dafa méngoo nga xam ne mbiru suñu borom la woon léegi nag yonante bi tànn bilaal mu koy def waaw léegi bilaal doon euh, kuy noddal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nuñ ko waxee ci biir ci jàkk ji ak ci xare yi ak bu bu armée bi àndee bu waxtu bi julli jotee rek moom mooy nodd moo daan yëgle tamit ndax baat bi dafa fooroon euh, lépp lu loo loo xam ne daal dafa dafa woote maanaam lépp loo xam ne dafa doon jëm si jàkk ji ci wàllum nodd moom moo ko yoroon léeg-léeg Abdullah ibnu Ummu Maktum tamit wuutu ko si am na ñu naan dañ daal awa awalante bu Abdullah ibn Ummu Maktum noddee Bilaal mooy liqaam bu Bilaal noddee Abdullah ibn Ummu Maktum liqaam kon am na ñu naan tamit dañ ko daan awalante est-ce que est-ce waaw am na benn soxna ci lansaar yi nee na euh, Bilaal sama sama kër teraasu kër la daan noddee ndax sama kër moo gënoon a kawe ci kër yi ci Medina ci te te mu jegee jàkk ji moo tax Bilaal fajar njël daanaka day ñëw toog ci kaw terrasse bi nodd nga xam dafa dendoon ak jàkk ji danaan taxaw fu kawe nodd waaw kon këru soxna lansaar boobu la Bilaal daan yéeg que est-ce que est-ce que euh, nodd soxna si tamit wax détail bu am solo boo xam ne dafay dafay dikkaat ci li ñu waxoon sànq mooy nee na Bilaal saa su daan toog laata muy nodd day mel ni day ñaan danaan suñu borom yàlla na nga def waa màkk ñi ñu bàyyi fee yàlla na nga leen yàlla na nga dëpp seen xol ba ñu dugg ci lislaam nee na Est-ce que- est-ce que- laata moo nodd rek faaw mu ñaan loolu daa di daa di nodd nga xam ne foo waay toll rek boo déggee nodd baatu Bilaal rek da ngay xam ne waxtu julli jot na wala boo déggee baatu Bilaal muy woote xare da ngay xam ne lii kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo woote kon noonu lañ demee ba nit ñi miin baatu Bilaal waaw miin ko lool ba nga xam ne ci kanam dinañ ko gis dinañ gis ne miin dem nañ ba miin ko bi fi yonent bi jógee sax souvenir boobu dafa des si si si si ñoom